waaw bismillah bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit mbokki taalibe yi mbokki dëkkandoo yi mbokki ñëpp ñu leen siyaar bu baax a baax man maa ngi tudd Basirou Ndiaye Touba Guédé jiite benn association bu naan association bokk benn bëgg-bëgg te suñ ko doon ci A4 bi Touba Guédé Bousso. mel ni gis nañ seen teewaay ci euh, activité bi tubaa ca kanam di def ngir lancé assainissement Touba ndax mën nañoo xam seen diggante ak tubaa ca kanam lan moo ko waral ak kañ la ak seen teewaay ci bis bi tey la ko waral. waaw loolu moom dañ ci rafet du am mbégte di ci kontaan loo ci sawar cee tontu parce que tubaa ca kanam moom yaakaar naa ku sañoon am groupe bu mel ni moom te ñu ne doon ay ndaw yoo xam ne doo nekk suñ koñ di xalaat di bëgg lépp loo xam ne mooy jëmal suñ koñ ca kanam te gis na ni Touba ca kanam ñu ngi ci dëkk bi defar lépp ca kanam ñooñu wax daal bi ñu soññee ci association yi dañoo bëgg ànd ak ñoom liggéey ñu ne dañoo def suñu kéemtalaay kattan ngir ànd ak ñoom ci liggéey bi wax dëgg yàlla ba ñu commencé ànd ak ñoom nag xëy na yàggut waaye na gis nañ ci mbégte gis ci cawarte doo xam ne nii dañuy ñaan yàlla gën cee sax ba faaw ndaxte Touba ci kanam gis nañ lépp loo xam ne ñu ngi koy liggéey ci dëkk bi te ñun loolu la moo mooy li ñuy teel ndax ñun ndaw yi suñ Touba leen soldaar suñ Bàmba leen lépp luy liggéey suñ Bàmba rek dañ cee teew euh, mën nañoo xam aussi bi ngeen tàmbalee ci Touba ci kanam ak léegi yan jëf yan jëf ngeen ci jot def fekk na ngeen amoon ay activité bi ngeen ci Touba kanam da ko continuer wala da ngeen a jël seen lépp sayal ci Touba kanam waaw xëy nag ñun activité yi amoon mooy que ñun chaque ajuma trois heures commencé bale ak dara taxawu ci muy bale bi amoon ak euh, li xam ne dañ doon fóotal ndongo daara di defaraat euh, daara xam ñoo ci koñ ba activité yooyu ñu continuer te ñaan yàlla mu sax dàkk nit ñi dañ ci gën a jàppale Touba Ca Kanam moom it lépp loo xam ñu ngi koy woote saa ñu ci wootee dañ ciy teewe bii nag mooy suñu deuxième fois ñu teew ci li xam moom la woote ginnaaw teew bi ndax mën naka ngeen di ànd ak waa Touba Ca Kanam da ngeen di liggéey wala da ngeen di dagg ay ay ni ko ñëpp di euh, defee waaw loolu moo loolu moom mooy suñu bëgg-bëgg xëy na nag ànd nañu ñoom ci liggéey bi waaye li bëgg mooy que ni bokk si ñi nga xam dagg reçu suñ koñ ba ñëpp xam ne maanaam Touba Guédé A4B ñoom kat seen koñ ña ngi fay dagg reçu ci Touba Ca Kanam Touba bëri na ay association ay ndaw yu mel ni yéen koñ boo dem am na fa ñu ngi liggéey liggéey bu am solo lan nga leen di soññee ci ñu gën a bàyyi xel liggéey bi ci tubaa ca kanam ndax gis nañ ne benn la ci bunt yi nga xam ne man nañ fee jaare liggéey Serigne Touba. waaw loolu moom dama ciy soññ association yëpp ak association boo xam ne leer na da ngay sax ñëwal nga jàpp Touba ca kanam ndax association bi gën a mag ci Touba mooy Touba ca kanam yaakaar Touba ca kanam ñu bëri na waaye association bi gën a mag ci ci Touba mooy Touba ca kanam te ñun suñu borom danoo dimbal ñun danoo am suñu récépissé wax dëgg yàlla am nañ ko xaw naa yàgg lool parce que mën naa la diiree na 40 ans ba nga amee récépissé ak léegi moo tax ñun ñu gën a sawar bokk ci Touba ca kanam